ña daa reyu nit a kay reyloo ka jekki ca di xulli ay gëte kay xoolee ka bew amañu ña daa reyu nit a kay reyloo ka jekki ca di xulli ay gëte kay xoolee ka bew amañu ña daa reyanteek woo aw ñu xëy ne tirim di déglu seeni ndigal ñooñee ko xam amañoo